woote lu ñu ñor la lii may wax nag dama fee teewal ay jigéen ñoo xam ne ñii ñu ngi soppali ñii ñu ngi ci marché bi di jaay ay jën dama am mbetteel am tiitaange somon comme ni laay waxe sànq ñett moo fi am mbey moo fi am tourisme ak pêche ñu gis ne mbey waxatuñu mbey sax fi ne nit ñi fu ñu dëkk la ñuy wax ah, ñu xëy ñu andil ñu benn décret boo xamante ne nii ñaar yi nga xam ne moom la ñu dese benn bu si nekk impact bi si nekk kenn xamul nu mu doon moo tax ma wax ne man damaa tiit am njàqare ndax li tax damaa am tiit ndax njàqare damay jigéen te jigéen ñii dama fee teewal baatu somon yëpp wax naa ñiy soppale jën ax ñiy jaay jën mais baatu somon laa fi teewal ndax jigéen dafa am importance si néeg am importance si société ndax suñu doom yi nga xamne ñoy dem ci li nga xamne mo fi dess muy geejgi ak tourisme bi li nga xamne moy air marine protégé bi ñu wax ne mom lañ ci bëgg planter dafa am yu metti yu nekk ci biir yo xamantene ni bëss buñu ko fi dafé moy somon na dem au chômage li may wax nak suma kay wax xëy demande ku ko bind jógewul ci président de la république xëy na su doomu askanu somon lay jóge ma jàpp ne ah ni ko laay waxe sànq buñ ñu laajoon fii metti dinañ ko mën a wax waaye kat la nga xam ne moom la président bi nga xamante ne nii moo fi nekk doon bañ dama jàpp ne moom la doomu somon jóg def jóg rek jële si kaw wàcc si suuf li mu saf li tax man la ni ko macca moo ko xam air marine protégé day loo xamante ne ni buñ ko defee somon gii jàpp naa ne mool dootul dem géej diggante bii des si diggante Somone ba Ndayane moom la ñuy xat-xat lool di si ut lu ñu suturaale suñu njaboot bon suñu ñëwee ne dañ fiy def aire marine protégée ma jàppane ñi nga xam ne ñoo dox lii wax ko suñu laajoon askan wi du demee nii tey suñ fi dëkkewul lu dul géej gi ak hôtel bi ñun ne dañuy def aire marine protégé te norme yi nga xam ne moom la aire marine protégée laaj bokkul ak norme yi nga xam ne moom la waa Somone war a liggéeyee mooy Somone nañ leen ko yóbbu au chômage te jàpp nañ ne buñ fi defee aire marine protégée bii jigéen dootul liggéey ndax li tax mool yi ñooy dem géej ñëw jigéen ñi ñooy soppali jën wi jigéen ñi ñooy jël jën wi jaayi ko mool day dem géej ba géej na xari jigéen génn li nga xam ne moom la dencoon defar kër gi te jàpp naa ne ku xool si Covid bii nga xam ne moo fi jaar bépp jigéen bu doon liggéey otel fu mu nekk am nga problème ndax li tax ma tudd hôtel moo dina air marine protégé fu mu nek dina gàllankoor hôtel yi ndax li tax tuba bi nga xamne suñu mbokk tuba bi nga xamne ñofi ñew bu ñu dañuy bëgg dugg si geej gi dem nappi wala ñu dugg si bir geej gi dem sangu ji te air marine protégé jéxal na wax ci olof moy fo jaune bo xamne dañ ko protégé kenn du fa dugg. geej gi xamantene mom lañ ñu bëgg parkal ñun xamuñu ay protégé nangam ak nangam ñun xamuñu loolu. lii nu gëm moo la li noo liggéeyee nee nu ko bàyyil lii noo liggéeyee nee nu ko bàyyil nun loola nu xam gëm ay protésé ay parka nangam ak nangam lool faalew nu ko soxlew nu ko tey soxlew nu ko ëllëg nun li nu bëgg te nun lu bëgg yaakaar ka mooy somoon géej gi la yaakaar amatul mbay amatul ak càmm lu dul géej ginnaaw géej gi hôtel yii ñetti weer a ngi xam nga juróomi weer yoo xamante ne benn tubaab ñëwatul somoon gii bon nun ñi xamante ne nag yi dem mbëkk ma taxaw ne dañu bëgg a protéger xale yi pour ñu liggéey si géej gi ba dem mbëkk ma yéen xëy tey ne nañu bàyyi géej gi dem mbëkk ma dama yaakaar ne loolu bu ko président bi ñu ko leeraloon président noonu du du signé décret bi bon décret bi du mas a nun noo fi téye xale yi gune yi nun ñii noo téye ba kenn du génn si dëkk bii dem di dem mbëkki wala di seet faala aw si géej gii laa aw nun nag loolu nu xam loolu nu gëm moo la bëgguñu tey bëgguñu ëllëg bëgguñu ginnaaw suba waa Somone waa Géeraw benn nangoo lii yéen si musiba mbaaba kumba lii benn kese ba nangu wallahi xam na ma ne ku nekk dina seeti faaruur sa boppa loolu nag ba fi laa am nu beñ beñ ba tëdd si suuf loolu moo fi nekk nun ay mbaal la am mbaal yi nu am nag ay mbaali tëmba tëmba la am ay boroton boroton yi mënu laa kaa seet fa sore yi baa ko fa sore doo ko mën a xëcce ndax say loxo laa kaa xëcce ba xóotee xóot benn bi doo si man dara doo ko mën a xëcce bala tëmb tëmb ba soree dala raw waa léegi yéen nan la noo def yéen léegi yéen yéen porkel nu juróom benn juróomi kilomètre ma ne loolu nun duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg président ba fekkee yaa signé décret bi signature bi Eva Seka dindi ko ba mu set wicca ba mu set wicc bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg ñii jaar si suufit dem fa ñaa wax ne dañu bëgg pour ñu protéger nu géej gi wala parkal nu géej gi bëgguñu ko tey bëgguñu ko ndax ñëwuñu si nun waxuñu xa nun tey waxuñu xa nun ëllëg li ma bëgg nag moo nun ñii ba ñu nu see nuy bekken isaan mbir mi fa mu ñu yegg rek yegg nanu fa fa mu ñu nanu fa lañu si bañul bañu na ko si bañu nu see sumaxu ba def yaragu neen jaayanteex ñoom kenn fi indi mu dib décret ñun buggunu ko tey buggunu ko ëllëg nee naa leen deux cent leen ko may si géej gi deux cent mètres duñ ko may wax naa ñu ne picc yi ngeen di sàmm ak dex gi yem leen seen picc yi ngeen sàmmaka te ngeen bàyyi lu géej gi ñun amuñu lenn lu ñuy dem di neexale kii que dañuy ànd bañ ba tëdd ci suuf duñ si jóg wax ji benn la ñun ñëpp noo bokk xeex bi ñi képp ku fi ñëw nu la ciy gërëm di la ñaanal jàmm salaam di leen xamal ne leen dañuy doog a door fii lañu ñuy yëpp ci géej gi yóbbu ñu armeel ya mais parc bi du fi am tey du fi am ëllëg loolu amul lu ñu siy dellu ginnaaw neexalaate beeg raay raay gi jaruka képp ku nu yaakaar ne bokk nga si mbir mi dem nañu sa néeg waxtaan ak yow ne la ndax yaa demandé lii ña ne demandé wu ñu géej dex gi ne demandé nu nañu kon yem leen si dex gi waa ku mën a ñëw ne may ma terrain ñene la hectare laa lay may dafa mën a am loolu mënta am. ña demandé nak ño xam comme ñi meññatu ñaa wax ñi meññatu ñaa jëf ñun suñu yoon nekkul ci ñom tay suñu yoon nekkul ci ñom ëlëk fi nu taxaw bu nu fi joggé yeen ñi ñoowal Macky Sall yeen ñi nga xam ne wax Macky Sall dégg né leen kan suñu niw lay jëlé fi pour def fi parc bi amunu si dara lu ñuy bañ nag duñu si déllu ginaaw ben mètre fofu la am lu may wax wasalaam dafa am lo xamné li man manuma ka d'accord mooy que lu xew fii Somone li si bu ñu laajee mu ne yëguma ko man loolu question boobu moo ma jaaxal parce que manuma d'accord que ne fii dañu am maire te lu ñu ko laaj mu ne yëguma bon loolu parce mooy man maa ngi wax si wàllu géej gi wàllu géej gi mooy lii ña leen bugg a sas ne moo fi war a am mooy que man premier man Aziz Diouf man d'accorduma si d'accorduma si parce que lu tax d'accord ma si mooy dex gi réserve bi bi ña koy def man fi la ñu ma fekk presque liggéey naa 10 ans ña soog a ñëw 1999 la ñu ko ñëw sànca pour réserve man ma dala bañ booga man rek a fi ne nun ñaar la nu woon ma sàllu sàcc man dama masa bañ dex gi ma suma d'accord si réserve bi ña planté ko fi parce que lii laa dama dama da doon gis lu sori sax te li ma doon gis dama si am ay preuve yu leer ndañ te man dama ko yàgg a bañ te dama ko bañ te ay doomu Soman ñooy wëlbatiku si ginnaaw di d'accord loolu parce que dañuy ñay jox ay mbuxum si suuf waaw xam nga li ma la mooy dañuy ñay jox ay mbuxum si suuf man na gëwma loolu man damay ñax man jariñu waaw fii boo leen d'accord ña def fi say ay réserve mooy yéen pare ngeen parce que dina leen teg ay mesures te doo leen ko mën a bañ moom leen nu teg fële ma ne da xam nga lan moo am eaux et xam nga lan la fi war a def mooy que na yem si xooli ay picc mais pas que ñay dem di toog fi ñay encaissé xaalis fi ñay encaissé xaalis rek la ñuy toog waaw fi ñay encaissé xaalis lañuy toog foofu la teg bët